yàlla bu baax a baax a baax moom mi ñu kàttanal ba ñu dellu siwaat julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur bu wér gërëm sunu la waaye gërëm leen yéen yi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel di ko jëmale ci ñun waaye bis bu yàlla sàkk itam ngeen di ko dëggal ne li ngeen di wax jëm ci ñun dëgg la ci yéen bu wér ceeŋ di nuyu di ziar képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi di ñu seetaan rawatina kilifa diine yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan yàlla bàyyi leen fi kilifa aada yi naka noonu kil eh, ñi nga xamante ni itam ñoom la caabi féete ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla génn leen sunu woy dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bakkaar eh, ñi nga xamante ni itam ay malade la ñu tëdd ci hôpitaux yi wala ñuy wéyaale seeni jàngoro ñu ngi ñaan ci kattanu yàlla yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen activité waaye waaye kër gi yàlla fi yàlla def jàmm ba sax dootuñu am jotu toog di waxtaan ak yéen ndax dañuy gis ne lépp defaru na defaru googu nag ñu yéene ko mbokk yi nga xamante ni taamu nañu génn moo xam réewu Afrique la ñu nekk wala réewu nit ñu weex ñu yëg ne rek seen xarit seen soppe seen doomu ndey soxna Mbaye dellu siwaat na na mu ko daan defee kenn ku ci nekk mu fekk la fa nga nekk ne la jabu loxo nuyu la ngeen gi nuyoo di asalaamaaleykum ci biir sa ngeen gi télé di la 2STV tey ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew yéen ñu nekk yàlla def fa sutura ak xéewal waaye la leen tax a génn itam réccuteef bañ cee am te ànd ak lu mën a xew yàlla na yàlla sàmm leen ba delloo siwaat leen fi nga xamante ni moom mooy seeni réew ñu dellu siwaat nag ni ñu leen ko waxee émission kër gi euh, samedi bu jot ngeen di ko am sant yàlla bu baax a baax a baax nag ndax li ko waral du dara lu dul rek xam ngeen 2STV na muy doxee saa su ne day bëgg ay programme am di gën a dox saa su ne dafay bëgg muy gën a neex di gën a am solo waaye saa su ne itam dafay seet la téléspectateurs yi bëgg mu di leen ko defal loolu moo tax xam ngeen ne da ngeen ko daan am du lundi au jeudi waaye sunu doom ji xëcaa ma nga fa di def lu lu bakkane mën naa ko tuddee lu ba kene macha allah euh, ñun ñu jël samedi bi rek fas yéene waxtaanee saa su ne rek liy am ci suñu biir kër te ni ma leen ko waxee thème yi du fi jóg parce que nag li ñuy wax ci biir kër gi du fi jóg waaye nag sañ nañu jëlaat yeneen boole ko ci biir ndax lu mu ci mënti doon rek jàpp nañu ne dafay amal solo téléspectateur bi seetaan kon loolu moo tax rek euh, ñu dellu siwaat samedi bi tey ñaan yàlla rek ngeen gën a yàgg di ñu ñaanal ñu gën a yàgg di jàkkaarloo ñun ak yéen ñi nga xamante ni dañu bëggante pire nag bëggante rek jëmale bu kenn xamul tey nag euh, ñu fas yéene waxtaanee ab gox gox boo xamante ni falaa fekk baax euh, c'est normal retour bi defe naa ni toog naa trois mois yoo xamante ni liggéeyuma ko su ma dellu si waatee tombeeg anniversaire ñu koy defal cent quarantième année euh, cent quarante et quelque ville bi nga xamante ni moom mooy Rufisque ma juddoo fa yaroo fa màggee fa samay waajur nekk fa anniversaire boobu dafay jaadu ñu indi ko fii waaye nag du doon anniversaire boo xamante ni dina neex de wala wala wala dina doon loo xamante ni ay gatoog yooyu déedéet la nekk ci tëngéej ci boppam ci ay jafe-jafe danañ ko waxtaane li nga xamante ni fa lañ ci toll ci wàllu liggéey ak sunu maire bu baax boobu danañ ko waxtaane wala waaye fan la jëm itam ci tëngee itam danañ ko waxtaane ànd ko ak son adjoint nga xamante ni moo toog nii di sama rak di sama xarit ñu yàgg lool bi ñaan maa ngi lay nuyu la ziar di la bàyyi nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi sama retour premier numéro bi man ak yow la macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. soxna Mbayam Thiam ñu ngi lay ziare bu baax di la jox sa wàccuwaay. ñu ngi lay delloo ziar ñaanal yàlla may la wér te yàlla defal la sutura. amiin di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di ñaanal adduna yëpp jàmm. di ñaan yàlla mbas mi nga xam ne moo ñu lëmbe yàlla teg ko fi. allahumma amiin defal ñu neexal Mawla wa neexal Nasir. Mhm. may nuyu sama waajur. muy mhm. ajaratu Mari Bokum. Mhm. di nuyu ajaratu Mukulsum Bokum di nuyu Hadja maanaam Aysata Njaade. merci. jërëjëf euh, ñu koy nuyu bu baax a baax sunu jur yooyu di ñaan itam sa wayjur bu baax wa macha allah nga xam te ni deful dara defu tëngéej euh, yàlla na xëppee aljana euh, ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmed Tidiane ñaan nekk tëngéej wax nga léegi dèjà fa ñuy ubbee sunu waxtaan muy wàllu mbas mi waaye nag dama bëgg rek ci une minute rek saa yu ma toggee ak sama invité nit ñi xam moom mooy kan lan lay liggéey ak lan moo sabab ñu indi ko ci plateau bi ci seen émission kër gi ajaratu mbayam maa ngi lay ziare bu baax di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Rufisque mm-hmm. di ñaanal ñëpp jàmm mm-hmm. di remercier waa Tëngéej bu baax a baax a baax si confiance bi nga xam ne am nañ ko si ñun mm-hmm. ba yàlla dogal man ma bokk si conseiller municipal bi ànd kook Alhaji Daouda Niang muy maire de la ville de Rufisque yàlla dogal nag maanaam ku yàgg def ay teranga la tamit kuy def social la yàlla dogal it avant mbas mii bu tabaski masaan jot day laaj lii nga xam ne ne maanaam muy conseiller municipal bi mhm. ñu jàppale mhm. maanaam waari fisk mhm. si wàllu social beneen bi moo it li nga xam ne ni mooy wàllu aju màkk bi da si defit social di yóbbu vraiment nit ñi tamit wax dëgg yàlla ñuy aji beneen bi it ñi nga xam ne ñuy suñu mbokk catholique yi da leen di jox ay bee ñuy dem Rome beneen bi it mooy macha allah wàllu embossement am na it même bu dara sax lu ñeew lu mu jël loo xam ni wax dëgg yàlla servir na ko. Mhm. population bi. donc dafay xeex chômage. waaw dafay xeex chômage. d'accord beneen biit. Mhm. yàggul tuuti. Mhm. agent yi nga xam ne mooy agent wu yi yokkal na leen seeni salaire. vraiment ñu kontaan lool macha allah. ñu di ko remercier bu baax. am na solo am na solo waaye ba tey bala maa ñëw ci li nga xamante ni mooy mair bi ak euh, ses activités damay ñëw ci euh, ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane ñaan conseiller nga. Euh, des ci bari dañuy jàppee ne ñi dar autorité yi. seeni conseil du baax. est-ce que des fois dinay faral di am euh, seen autorité yi yëkkati benn mbir ngeen ne ko comme da ñu demandé conseil ñun ànduñoo ak yow ci lii nga xamante ni moom nga dara doxal jëmale ko ci population bi rawet nañ ci kër gi. dëgg la. Mhm. maanaam daaw Daawda Ñaan yàlla dafa dogal muy maire. Mhm. ñu ànd koog moom. Mhm. nekk ay conseil municipal ville de Rufisque. te Rufisque it am presque trois communes yoo xam ne dafa am est ouest nord. ñun ñi nga xam ne ñooy ñëw ville. benn commune bu si nekk dafa ay conseils yu fa jóge ñëw ville fekk ko fa. Mhm. yàlla dogal moom lu muy def. Mhm. dafay demander conseil municipal bi. Mhm. ñun ñooy jox suñuy avis. ànd koog moom. mu war koo def. d'accord beneen bi muy bureau bi nga xam ne ñoom la nekkalit. lépp lu muy def. daf si waxtaan ak ñoom. daf si waxtaan ak ñoom beneen bi maanaam li nga xam ne da koy def. maanaam da koy jël. joxaat ko maanaam adjoint au maire yi nga xam ne ne ñoom la àndal mhm. ak maire yi nga xam ne ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo nekk ak moom nekk Rufisque mhm. mu delloo lañ ko mhm. ndax ko xam daaw dañaa xam sax li muy génn télé bëriwul ngir joxe cër mbaa xam nga ne Tëngéej laa dëkk fa laa juddoo te xaw ma waaw loolu moom ndax maag sa rakk ñu daan ànd ngay suñu jigéen di suñu mag. dëgg la dëgg la dëgg la muy lu am solo. Mm. donc euh, ñu fas yéene waxtaane rek jafe-jafe yi léeg gox yi jafe-jafe yi muy am. Mm. dafay bokk ci émission kër gi wax naa leen ko ci band annonce bi mm. même nee naa leen sax ñii nga xamante ni ñooy luye ak ñi leen di luye problème yi ñuy am yooyu yëpp ci biir kër gi lay dugg ndax changement lañ ci bëgg indi waaye nag yàqul dara ci thème yi nga xamante ne daan nañ ko def ndax jigéen ñi dañuy toog kër bëgg ñuy waxtaane seen i jafe góor noonu donc euh, macha allah fa tabaarakallaahu samedi bu nekk daal nii lañ nar a jàppoo ànd yéen ñi nga xamante ni yéenay les inconditionnels de la 2STV rawatina seen émission kër gi ba ma ñëw ci li nga xamante ni moom moo xew muy wàllu mbas mi indi euh, gàllankoor yu baree bari indi jafe yu baree bari ci wàllu surtout liggéey bi yéen actuellement naka ngeen koy dundee ci côté sensibilisation bala maa ñëw ci wàllu sociale bi. wàllu mbas mi yàlla dafa dogal. yaakaar naa à part ville de Dakar. Mhm. amul kenn ku njëkk a participer ville de Rufisque. ci wàllu mbas mi ci wàllu mbas mi. Mhm. keroog ba ñu déggee ne président. Mhm. maanaam joxe na maanaam avis bi nga xam ne ne pour ñëpp ku am. cotiser. ñuy remercier di ko ñaanal sëñ Sidi Muxtaar. yàlla na fi yàgg te wér. yàlla maanaam sëñ mun maanaam Muxtaar yàlla yokk leeram. yàlla yokk leeram. yàlla guddal fanam. ndax. Mm. yaakaar naa ne. Mm. ba président wootee rek nit ñi xalaat rek. Mm. yaakaar naa moom si la génnee deux cent millions joxe. dëgg la yàlla dogalit mm-hmm. sama benn xarit bu ñuy wax sëñ Abdoul Fattah Sall bu sëñ Abbas. la ville de Rufisque maire Daouda ko déggee rek. Mm-hmm. dafa def bu rëy. Mm-hmm. muy presque vingt millions. la jox bi. moom la jox état bi moom la jox état bi. boole kook la nga xam ne génne na ko. muy la ville de Rufisque. toll na presque si wàllu social. une valeur de cent vingt millions. mu woo. handicapé yi mm-hmm. woo ñi nga xam ne ne ñoo ko yelloo mm-hmm. jël na presque trois millions yóbbu su Mbargane mm-hmm. si si xaalis ak yeneen yoo xam ne ni yu mu def maanaam si daara yi beneen bi mooy mu woo ñetti commune yi mu partagé leen li nga xam ne ni moom la ville bi génnee jox leen ko muy àndu nawle àndu nawle nit boo nekkee ak say nawle ànd ak ñoom ñuy jàpp si mm-hmm. Rufisque mm-hmm. yow it nga ànd kook ñoom mm-hmm. moom daf leen delloo lépp ne leen noo leen def rek ngeen xam ne maa ngeen yéen a ànd jàpp na ne seen xalaat rafet na te puis moom képp ku mu àndal daf lay jàppee nawle tamit ku mën a déglu la d' accord waaw muy lu am solo xam naa Laye Sarr dinañu jëkk a balancer image yi ñu def commentaire ci kawam li nga xamante ni ay don la ñu jël ko jagleel ko population Rufisque mais dafa am loo xamante ni nit ñi dañ koy dund parce que dañuy jàppee ne ñoom ci seen wàllu bopp mm. euh, population bi dañuy jàppee ne euh, ba ñu waxee nit ñi toog leen seen kër ak léegi dafa yàgg mm. xam nga ku mel ni soxna Mbaye nga ne ko toogal sa kër trois mois léegi ñu def kit yoo xamante ni maanaam ñaari saaku ceeb la diwlin ak yooyu Euh, sensibilisation bi maa ngi la ci posé question sànq dina dinañ ci ñëw ni ñu sensibiliser nit ñi nit ñi mën a daw mën a topp distanciation bi parce que déjà plateau bi à trois la waroon doon mm-hmm. mais gis nga respect bi nga xamante ni 2STV def na ko loolu moo tax ma def ko man ak yow kese su ko defee distance bi ñu soxla ñu mën ko am mais est-ce que loolu doy na population bi exactement mm-hmm. est-ce que loolu doy na leen suñu mënee gis image yi lay saar est-ce que loolu doy na leen waaw loolu rek du doy mm-hmm. lay doon waaw loolu presque continuité lay doon ndax vraiment ñun waa ville de Rufisque waaw maire yëkkati na. Mhm. ay action yu rafet. waaw maanaam jox ko ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko yelloo. Mhm. beneen bi mooy. mooy def na social boo xam ne ni. Mhm. bi mu koy defit invité na presse bi yëpp. ñëpp tamit woo na ñi nga xam ne ni ñoom ñooy chef de quartier yi. moo ma ñi nga xam ne ni mi ñooy <laughs> adjoint au maire yi. Uh-huh. woone ñi nga xam ne ni uh-huh. ñoom ñooy sëriñ si woone ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi uh-huh. woone ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi woo syndicaliste yi woo ñëpp macha allah kenn ku si ne ñu waxtaan ñi nga xam ne ñoom ñooy conseiller bureau maire waaw kenn ku ne ñu jox la li nga xam ne ne moom mooy li nga yelloo li nga yelloo beneen bi mooy bàyyiwul ndax am na social yoo xam ne mi ngi koy def parce que da nga ñëw ci chef de quartier yi noonu bala mu maa rëcc euh, séddale fois dañu wax ne séddale bi demeewul ni mu war a demee dañu wax ne séddale bi boo joxee kii mu tànn ña ko neex jox jox ko nga jox kee mu tànn fat yóbbu ci ay mbokkam est-ce que loolu dal na waata ngee ci déedéet man gisaguma ko d'accord mais nag loolu ah, et puis li ngeen ci impliqué chef de quartier yi itam euh, loolu lu ci rafet la parce que ñoom ñoo xam la xew ci quartier ba dëgg la ndax moom bi mu ko jëlee jox ko mairie yi mm-hmm. mairie arrondissement yi ñoom dañoo jël mm-hmm. jox ko mm-hmm. chef de euh, chef de quartier yi. waaw ak bàjjenu gox yi. Mhm. woo imaam yi woo ñëpp notable yi. d'accord séddale leen ko. Mhm. yemul sax ci dund bi. Mhm. mais dafa jënd ay masques. ay masques ay masques lu tolloog presque cinquante mille masques. séddale ko population bu Rufisque. beneen bi yemul si mu jënd ay barigo. mooy li nga xam ne ni moom la ñuy raxasoo. yi ànd ak ndox saabu yeeg te am robinet yi waaw jënd ay pompe jënd li nga xam ne ni tamit yoo bëri. leneen li presque mu yóbbu ko service d'hygiène. beneen bi maanaam. yemul foofu. Mhm. mu partagé ko. Mhm. presque la euh, maanaam préfecture Rufisque. waaw maanaam ba si service d'hygiène. Mhm. maanaam daal jàppal ne daal ñi nga xam ne ñooy adjoint yi. waaw lépp lu ñu waroon def. maanaam li ñu naan maanaam lépp mënul doy. lépp it mënul yem waaw. ndax li fi nekk. bu bëri bu bëriwulee. li ñu amit ñu ngi koy def. te ko xam ne ne mairie bi li mu yenu dafa diis. mais teewul. voilà lépp loo xam ne rek mën na ko def déjà don yaa ngi noonu. waaw ah, kañ mu nekk ay eh, ceeb ak waaw kañ euh, gis nga le maire ngi nii daaw dañaa. voilà ah d'accord daaw dañaa moo nekk nii. waaw kañ ceeb yee nekk nii voilà mu jëmee woon ci allah mu jëmee lépp ci population bi. d'accord muy lu rafet gis nga mhm. saabu yaa ngi nii. waaw vraiment macha allah daal. Mhm. waaw gis nga monsieur le maire Daouda Correa mooy wax na ni. Daouda Correa ak Amadou Sène Niang. ñu a vraiment macha allah lii lépp. d'accord Mm. daf ko jox adjoint au maire mm. jox ko maanaam ñetti communes yi mm. ne leen séddale leen gis nga masque yi moo nekk noonu d'accord vraiment macha allah ba tey itam gis naa benn mbir tam au niveau de Rufisque mm-hmm. euh, c'est pas que le maire moo génnee ci poche am def dañ ko bàyyi ak moom mu def waaw dama gis ñu bari ñoo xamante ne ay bonne volonté lañu mm-hmm. ñoom itamit jàpp ne population Rufisque ca la ñu bokk fa la ñu juddoo Rufisque moo leen def li nga xamante ne moom la ñu doon niki tey ji sauf man mm-hmm. man Rufisque moom ma def tey jii li ma doon waaye sama ñaar dërëm demu ca mais gis naa ne ay borom volonté yoo xamante ni ñu mel ni yow mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni dañu ñëw jàppale le maire mhm. parce que jàpp nañu ne xeex bi dafa doon loo xamante ni war waruñu ko bàyyi ak le maire kese ndax dafa doon mi ngi bëgg a yàgg nag mhm. mi ngi bëgg a yàgg dëgg la ku mel ni Alhaji Moundiaye Cissé Moundiaye Cissé ONG 3D moom it vraiment taxaw na si trop ndax ku lim da ngay juum waaw dafa mel ni dafa ku nekk ci ligne bi euh, allo allo voilà ñu ngi xaaral ni mbokk mu ci ligne bi nga ne ku mel ni. mu Ndiaye Cissé si mel parce que waata ngeej la moom il d waaw vraiment moom it def na si lu rëy. Mhm. ku mel ni man mi Ahmed Tidiane ñaan it jënd naa ay masque joxe. macha allah maanaam li nga defaraw loolu am na ñoo xam ne vraiment ay bonne volonté. <laughs> ndeysaan vraiment ñoo xam ne tamit taxaw nañu. Mhm. jàppale waa Rufisque mm-hmm. bu baax a baax ku mel ni monsieur le ministre ta Ismaïla Madior mm-hmm. Fall moom it vraiment Madior Fall taxaw na moom it mm-hmm. macha allah def ndax ñun ñëpp benn lañu te ñun ñëpp it wax dëgg yàlla Tëngéej moo ñu ñor dëgg la vraiment daal jàppal na mérite la mu def donte ni du si poosam mais yéeneem la Mhm. ndax moom la yàlla jiital non dire moom dafa mhm. génne poche am mais nit ñi dañ ko ci fekk si dañ ko ci fekk si moom laa foofu laa waxee moom dafa génne li nga xam ne ni moom lañ ko votel mhm. muy budget bu Rufisque waaw moom la génne si signature am na xalaat leneen mais bañ moom ba mu amee xalaatam bu rafet waaw daf ko indi si conseiller bi maanaam ñu jàppale ko si mu am yéene mu def ko donc loolu mooy social waruñu banque suñu loxo dëgg la parce que mënuma concevoir nga jàngee par exemple école Matar Seck wala école municipale nga gis ne yow tey doon nga dara ci réew mi muy Tëngéej nga wëlbatiku di xool ñu naan laan dalu école municipale ma ngay daanu mm. dalu école Matar Seck ma ngay daanu nga yor say millions tëj ko ci banque loolu du social dëgg la loolu taxul ñuy wax social loolu taxul ñuy wax social. waaw ndax xam nga nit moom. Mm-hmm. am na loo xam ne bu la ko yàlla defalee. Mm-hmm. te nga mën koo def te du la yàqal dara. Mm-hmm. boo ko defee yàlla moo lay fay. dëgg la ndax tamit. gis naa ñu fi jiite ñoo xam ne boo waxoon boo waxee ñoom duñ la nangoo déglu. ba di la may sax nga wax. dëgg la mais gis naa daaw dañaa oyof gi mu dal. oyof gi mu am. dal bi. yaatu bi mm. yéene tënge jàmm mm. et puis ànd ak conseiller municipal bi mm-hmm. ànd ak ñoom ndax ñun ñi ànd ñëpp mm. bokkuñu ay parti déedéet kenn ku ne ñi ay PDS lañu mm-hmm. ñi APR mm-hmm. ñi AFP ah d'accord ñi LDMPT ñi ay mouvement yu ñëw mais teewul maanaam ba ñu àndee ñëw dañ ko wóolu jiital ko ñun ñi ànd ak moom it mu wóoluñu ànd ak ñun ba nga xam ne lépp lu ñuy def it moom du taxaw day ñëw def li muy dafa pare wax bàyyi ñun ñu àggali d'accord beneen bi mooy ko am yéene ci Tëngéej la ndax vraiment amoon nañ ay projet yoo xam ne ni mhm. dañ ko ba ñu ñëwee mhm. la ñu ñëwoon ak suñu groupe ñun ñëpp mhm. muy xalaat bu rafet ñu def benn assise nationale invité woon demi tëngéej ji yëpp invité woon ñëpp ba ñu tënkoon fa waxoon fa ba dara desul woon lu dul ñu jël dossier yeeg yëpp la ñu waxoon jox ko président mais boo léegi vraiment ñu ngi xaal président Macky Sall Alaaji Macky Sall maanaam euh, assise boobu ñu defoon mhm. muy waa Tëngéej ñi nga xam ne ne ay ñëpp a ngi fa daal maanaam mu xalaat si moom it jàppaluñu si mhm. beneen bi mooy amoon nañ benn euh, lu mat ñetti projet mhm. comme carré d'or bi bi xam ne moo lañ defoon waroon def si marché bu Rufisque foofu laa bëggoon a ñëw parce que dama bëggoon projet yi euh, moom la ñuy jeexale mais nag sañ nañu tolluwaayu tëngeej fi mu toll nii sañ nañ ko waxtaane parce que gis nañu ne marché bi bari na coow bi coow lalli mm-hmm. gis nañu ne euh, zone yu tali yu bari mm-hmm. dañ ko baare mm-hmm. dañ ko tëj surtout maa nag terre bi nga xamante ni moom la ñu def c'est vrai que euh, bu ñuy wax ñu naan terre bi yëkkati nañ ñu joxuñ ñu xaalis man je dirais que ne amul parparloo parce que xam nga tax ñun bokk nañ ci kër yi njëkk a yëkkati te laataa ñu ñuy yëkkati kenn ku ci nekk jëndiwaat nga kër ca lañ la jox donc yëkkati bi doon na loo xamante ni jaaral nañ ko ci yoon mais nag tëj bi nee nañ dafa metti tëj bi nga xamante ni dañ ko tëj tëngeej maanaam boo bëggee dem juuti ba wala nga bëgg dem euh, feu rouge wala nga bëgg a dem euh, euh, il faut nga dem tournée ji ba barñi wala dara liggéey yooyu fan lañ ci toll waaw yàlla balaa may ñëw ci setaayu tëngeej liggéey yooyu fan lañ ci toll liggéey boobu soxna Mbayang xam naan lu sa kii di gaa dafa dogal sax la mais maanaam xam naa si dara waa tëngeej dañuy te xamuñu fi ñu teg bi ñu ñëwee am na si loo xam ne tamit ñoom. Mhm. waroon nañoo dugalante ak mairie ville. Mhm. waxtaan ak moom. merci ndax kenn ku ne fa nga dëkk. yaa xam porte yi ñuy jaaree. d'accord mais ñoom it ba ñu ñëwee. Mhm. dafa am loo xam ne dañ ko manqué woon. waxtaan ak. waaw DSP. waaw bu fekkee am na ku lekk ci ligne bi rek ñu balancé ko su ko defee incha allahu taala euh, monsieur Correa mi ngi wax ne bëgg na dugg ci émission bi ñu ngi koy xaarandi incha allahu taala léegi léegi lay doon. te waroon nañu see dugal DSP. voilà mais ba ñu ñëwee tamit diggu liggéey. am boo xam ne waxtaan duñ seet. la mairie. c'est ça te waroon nañ see impliqué mairie. c'est ça à 100 pour cent. Mm-hmm. ndax daaw bi mu amee mbënd bi. Mm-hmm. am na loo xam ne sax monsieur le maire. Mm-hmm. si ay moyens am. vraiment taxaw na si trop. Mm. ut ay vraiment maanaam ay oto waaw ñu manque mm-hmm. moo ay pompe mm-hmm. yooyu yëpp daal vraiment ñu jàpp si ba yàlla defal ñu sutura mm-hmm. bon nag may wax nag état bi mm. bépp projet boo xam ne yéene nañ ko waa Tëngéej waaw te ñu war ko def nañ si impliqué mairie de la ville de Rufisque d'accord ak mairie arrondissement yi d'accord ndax tamit dëgg la daaw dañaa PDS la mais tëngéej la fa nekk. ah sunu bi bokkul ci kër waaw moom sama xam-xama bariwul de. mi nga moom PDS jëm mag nag. mais jàppal ne Sénégal la gëm. <laughs> waay tëngéej la gëm. tëngéej la gëm te di ko liggéey ndax ñun ñu ànd ak moom. Mhm. yeneen parti lañu. Mhm. mais yéene bi mu am si tëngéej. waaw ak. yéene bi mu si tëngéej yéene bi mu am si tëngéej. Mhm. ak yëg gi mu ñu yëg. waaw ak bëgg gi mu ñu bëgg. Mm-hmm. vraiment tax na ñun ñu nawloo ko. incha allah eh, eh, Lay Sarr daf may téyeel élément boobu ba nga xamante ni bu ma ñëwee ci wàllu setuwaay ak tëngeej ak yooyu parce que da nga dugg fu am solo. ndax mënuñu ñëw. di recenser tëngeej. di yëkkati ay kër yoo xamante ni ñu ngi tëngeej. Mm-hmm. di leen jox pour ñu dem dëkk ji. ak yeneen ak yeneen changement di fa am. Mm-hmm. te vraiment liggéeyuñ ci en collaboration avec le maire. man loolu doon na lu ma bett à l'instant euh, bi nga xamante ni fa laay waxee ak yow. mi ngoog lu bëri daal. waaw am na si loo xam ne maire du ko yëg da wax dëgg yàlla mhm. koy ñëw si kër jàmbur mhm. xanaa boroom kër gi wan ko ko fëgg waaw mu la yàlla teg foofu donte mhm. ni PDS la mais wanewul parti te ku la jiitu ci nekk lu ndëm moo lay wan fu ñuy taale lamp bi moom wanewul couleur dëgg bi mu ñëwee léegi même doo gis maire muy réunion foofu muy concerné affaire u parti wala affaire u nangam dëgg la moom boo waxee mu ne ni ñu àndee nii si àndu nawle nañ ko jàppante nañ ko waxtaane nañ ànd ànd bu rafet na tëngéej moo ñu ñor tëngéej moo ko ñor dëgg la ndax moom ICP la Mm-hmm. nekk na ICP lu tolloog 9 ans. Mm-hmm. mu yow nekk directeur bi vraiment liggéey fa liggéey bu rafet. Mm-hmm. bi bu ñëwee mairie bi boo xoolee marché bi. def na fa ay pavage mm. vraiment def euh, déguerpissement vraiment macha allah daal boo xoolee marché bi ni mu meloon. ak léegi dugg ak génn bi. waaw léegi mu ngi am changement vraiment am na ay changement yu bëri. d'accord waaw boo xoolee tamit euh, projet yi ñu dugal daal. xam naa comme li nga wax rek. dinañ si waxaat. mais li ma lay wax rek mooy. mooy tamit. Euh, entreprise euh, industrie bu mel ni Sococim. waaw war nañ mën a jàppale Tëngéej war nañu mën a wax ak mairie bi. waaw waaw ndax Sococim vraiment man gisuma lu mu taxaw Tëngéej. ñu ngeeg lu tolloog si seize titres fonciers yoo xam ne ne dinañ ñëw de parce que waxoon naa leen delloo wax naa leen ci bande annonce bi ne leen waaw ci lañ bokk waa Sococim dinañ fi yebal ndaw ñëw wax ma lan moo tax jàppalewuñu war nañu jàppale Tëngéej waaw Sococim si boppam tali ba jëm Sococim ci boppam moo ma jëkk a naqari xool ñu mel Colobane guy mu jëm Sococim lamp yi d'accord mm-hmm. te Sococim normalement mm-hmm. ni ñu impliqué Tëngéej mm-hmm. yaa ngi dégg euh, nekk diggante Bargny waaw ak Tëngéej waaw Bargny waroon nañ see gis seen bopp dëgg la yaa ngi dégg titre foncier yi nga xam ne ñu ngi foofa hectares yi mm-hmm. waroon nañ koo jël mm-hmm. delloo ko waa Tëngéej tabax fa benn lycée bu mag mm-hmm. doomi Tëngéej ji dafa jàng dëgg la pourquoi pas mënuñu faa tabax benn hôpital boo xam ne ni departement Tëngéej yëpp fa la ñu war a fajoo mais bu ñu ñëwee nag téye tamit Tëngéej saxaar si yaa ngi dégg léeg-léeg ñu jékki-jékki def seeni yaa ngi dégg miin ñoo xam ne. waaw kër yi leen dende. a toj toj nañu. vraiment rafetul. vraiment te boo waxee ñu def nangam ak nangam ñun yàlla defal nañu sutura. Mm. mais dama ne Sococim. waaw nañu ñëw wax ak la mairie des villes de Rufisque muy El Hadj Daouda Niang. Mm-hmm. beneen bi. waaw nan ngay ñëwee patente. Mm-hmm. chaque at un milliard presque trois cent millions. nga di ko am. maanaam ngay fay lu tolloog mairie Tëngéej. waaw yow ba nga nekkulee Sococim mel ni ngay liggéey benn saak. waaw nga dem tey macha allah tey ku daan ku daan ku daan liggéey par jour. un million. nga dem tey bay liggéey par jour macha allah kaar kaar sama cat. waaw huit cent millions. waaw mais a patente war na yokku. war na yokku état bi waru laa baal. donc patente ah. bi benn place la la patente bi dëpp ba ñu ba Sococim nekkee Sococim ba léegi. waaw patente bi ñu ma a fay Tëngéej chaque at. waaw un milliard la trois cent millions. moom la ñuy fay la ñuy fay ak Tëngéej. mairie bi. Mm. la fa nekk say embauchement presque. Mm-hmm. ak li fa maire fekk say embauchement. Mm-hmm. presque mat na ay six cent et quelques mille. te du wàññi kenn. waaw ay six ay six cent personnes. dëgg la te loolu doy na waar. metti na ah, te maire it ku ko xam xam ne nit ko gëm boppam la. Mm-hmm. am na yoo xam ne du ko nangu. déedéet ah, déedéet yàlla defal na ko sutura. Mm. du dëgg bon am na foo xam ne boo fa bokkee. waaw am foo xam ne boo fa euh, jaaree. waaw am na loo xam ne doo doo ko gëm. dëgg la dama bëgg su ko sim nañu jàppale Tëngéej. jàppale population bi Tëngéej. parce que Tëngéej euh, Rufisque est dans le besoin. waaw Tëngéej euh, soxla na loolu. parce que xamul tax amul tali booy jaar. waaw gis ne tali ba baax na. dëgg la te loolu dafa xewi. dafa xewi bu ñu demee ba xool tey jii. mi ngoog Parcelles Assainies. waaw am ay tali. defuma publicité mais xoolal Dangote tabax nañ fa ay ay. ay hôpital ay case de santé <laughs> defal nañ fa ay jàkk waaw jël nañ xale yóbbu leen ñu jàng te Sococim moo fa jiitu yooyu yëpp moo d'accord au moins ñu jàppale waa Tëngéej donc ñoom ñoo ñëpp dinañ leen woo ci émission bi ñu wax li tax bëgguñu jàppale Tëngéej ak Dangote itam euh, li muy liggéey mbokk ngi ci ligne bi ñu jël ko la asalaamaaleykum allo li Laye saar xool leen seen téléphone bi su ko defee rek euh, ñu mën a taataan kàddu yi parce que maa koy jot message ki nga xamante ni bëgg na parciper ci émission bi su ko defee rek ñu dugg indi seen xalaat parce que tëngeej nag kenn ku ci nekk fa nga nekk daf la ñor te tëngeej jàpp nañu ne dañ koo war a waxtaane bariwuñu lu ñu koy waxtaane ci plateau yi euh, euh, moo tax il faut que dinañ ko waxtaane jafe-jafe ya fa nekk gis nañu tëngeej daanaka boo jëloon tey image route mairie bi bi ci ginnaawam këri kaw Euh, bi ci beneen côté bi côté Dangu. Mm-hmm. wala nga jël ginnaaw raay ba. Mm-hmm. amul lenn loo xamante ni am na ci changement. Mm-hmm. te tey jii dangay ngay dem Parcelles Assainies gis changement dem Grand Yoff gis changement. dem waaye gis changement ci wàllu tali yi ñun tali yi ñu juddoo woon ba léegi ñun fa lañ ko fekk te loolu dafa nekk loo xamante ni du liggéey bu ndaw. man jàpp naa ne du liggéey bu ndaw parce que bala ñoo woon taxawal ne dañuy taxawal TER bi jaarale ko foofu ci Tëngéej euh, fay nit ñi ay xaalis d'abord nañu defar tali yoo xamante ni ay issue lay doon. mais dañ koy tëj ba pare liggéey sunu teer ba pare te déjà sax affaire bi commencé gul daw donc structure yooyu comme sa ko Sococim daf ci war a dugal loxoom. te ñoom seen tali jëkk a bon. mbayam daal ba pare ñu jël xeer yi teg tol ni man. baare ci rebooru tali bi gaare camion yi. <laughs> mbayam daal <laughs> dafa metti da wax lu am solo. <laughs> Mhm. loolu daal ñu ngi koy euh, wax El Hadj Macky Sall. Mhm. mooy président de la république mu jàppale ñu. Mhm. lillahi wa rasulihi. Rufisque Villeneuve lañu bëgg. waaw mu jàppale ñu. Mm-hmm. jàppale bi mooy. Mm-hmm. moom mooy état. way moo yor lu mairie yorul. Mm-hmm. moo ëmbam mairie. am na diggé yu mu fa defoon. ba mu ñëwee def fa trois jours. ne woon na waa Tëngéej. dinaa leen jàppale. te ko xool élection présidentielle yi passé xam ne vraiment jàppale nañu. président Macky Sall bu baax à cinquante huit pour cent. bon nag vraiment ñu ñaan président Macky Sall. waaw ne ñu jël Tëngéej. ñu jàppale leen. defaraat ko si wàllu école. Mm-hmm. canal bi newoon na bu faloo 2012. waaw dina si ut solution. ba ma ñëw ba ci canal bi ba ñu gis canal bi. beneen bi mooy loolu ba mm. léegi ñëwagu si. ba mu ñëwee dafa 3 jours xaw ma jours. Mm. ñun ñëw nañ fi mu recevoir ñu. Mm. mu recevoir mairie bi. mu ne dina jàppale Tëngéej. Tëngéej. tëngéej nag. Mm. dëkk la boo xam ne dëkk bu bari barke la. Mm-hmm. dëkku baatin la ay nit bu baax ñoo fa dëkk. waxal ca kaw. ay nit ñu am jom ñoo fa dëkk. wallaahi azim. ay nit ñu doylu ñoo fa dëkk. dëgg la ay nit ñu am valeur ñoo fa dëkk. ñu ñu ñu mën a dimbalee. ñu am solo ñoo fa dëkk. dëgg la. nit ñoo xamante ne boo duggee sa administration bi. Mm. da leen fay fekk. Mm. moo da fekk mukk. Mm-hmm. ñu ne ay waa Tëngéej lañu. Mm-hmm. bon nag ñuy wax président Macky Sall. na ñëw Tëngéej jàppale waa Tëngéej jàppale mairie bi. dëgg la ndax mairie bi li mu yenu diis na. patente boo xam ne nii. Mm. ñu exonéré ko sim mm. la mu waroon fay mairie bi. Mm. fayu ko te tey benn at bu fayoon mairie bi sept milliards yi mu ko yoral tey. mairie mën naa tabax hôpital. mën na tabax lycée. defar tali yaa ngi dégg mën na defar tali. Mm-hmm. mën na embaucher ay xale. Mm-hmm. mais bu ñu jëlee mairie bi nag boo boog léegi. Mm-hmm. lépp lu mairie bi waroon a am. ñu baal ko Sococim baal ko yeneen entreprise est ce que du xëccoo bi doxoon diggante Bargny ak Tëngéej. déedéet fan la ci Sococim féete est ce que du loolu moo waral loolu. wala daanaka du loolu sax mais mais dama yaakaar daal li mu nekk daal bu waxtu tubaab a tax waaw te comme ñoom it neewuñu fi. Hmm. ñoom presque ñi si ëpp kilifa yi. Hmm. dañ nekk ay côté France. <coughs> ñi fi nekk tamit. Hmm. xëy na bu ñuy ñibbi. duñ dugg ñu dugg si biir dëkk bi. déedéet ndax booy xool autoroute à péage bi. boo jógee Sococim autoroute ngay dugg rek génn. la man damay wax ne chaque jour. ña nga xam ne ne ñooy kilifay Sococim war na bu nawet ñëwee ñu dugg biir Tëngéej xuus si ndox mi comme ni population bi di xuusee si ndox mi. Hmm. yaa ngi dégg bu ko defee dinañ xam nan la ñuy jàppale dëkk bi. bu ko defee bu ñu jàppalee Tëngéej. Hmm. jàppale bari ñi. Hmm. mais jàppale nañ réew mi jàppale nañu Sénégal. Sénégal mais bu dee nag maanaam jàppalewuñu wuñu Tëngéej. ba pare Tëngéej actuellement maire bi li mu mënoon yëpp mënu ko. dafay daal di metti dafay sooxe te daaw dañaa mooy un maire boo xam ne kenn mësu koo gis mu def conférence de kenn mosul gis muy revendiquer mbayam du ñaxtu kenn musul gis mu taxaw ci télé di wax lu ñaaw d'accord moom lu ko lu mu man mm. ak lu mu manul ak lu mu am mm. dina ko muñ wuyee am na solo waaw te dafa doylu dafa doylu dafa doylu noonu lay mën a mel macha allah euh, ci ni ma ko déggee euh, tey jii dafa waroon a fekk ñu toog euh, bu toogoon tey jii di laaj àddiya dañ ko koy jox ndax fa mu bokk tax macha allah fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax monsieur le maire de Rufisque boobu Daouda Niang ak mbooleem koo xamante ni yaa ngi liggéeyee ca mairie ba ak waa Tëngéej yépp Tëngéej rek ñu ñor gis nañu itam euh, Tëngéej am na benn mbir bu fa nekk maa ngi lay sànq marché bi. Mm-hmm. jafe-jafe yi ci nit ñi jànkonteel lu ci bari euh, jam amoon an na ay jamono san confinement bi. Mm-hmm. Euh, tëjoon nañu marché bi laajaat ay defaraat ak yooyu. Mm-hmm. defaraat nag dafa metti parce que bu ñu laalee laajee sa laalee Sandaga waa Sandaga jóg bu ñu laalee HLM waa HLM jóg marché moo mel noonu. parce que ki nga xamante ni <coughs> dafa jàppee ne wërsëgam mi ngi koy amee ci taabalam. boo ko nee demal toog ba ma defaraat. kooku day métti ci moom pour mu dem toog mhm. waaye bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga rek dinañ xam ne mhm. defar moo leen tax a jóg mhm. te li ñuy leen di defaral ëllëg seen njëriñ lay doon mais gis nañu ne itam euh, téléphone bi malheureusement xaw ma lan moo ci nekk mais ñu ngi xaarandi rek mbokk yi ci 88 628 14 13 gis nañu ne euh, malheureusement Tëngéej dafa nekk dëkk boo xamante ni bu ñu nee dëkk sàngam dëkk bu salte la dañ naan ak Tëngéej lan moo waral loolu waaw li waral loolu mooy canal bi. waraloon waaw li waraloon loolu léegi tane na. léegi fi mu nekk nii tane na wàññeeku na. d'accord ndax li waraloon loolu. Mm. boobu mm. ku jël sa mbalit. Mm. si canal bi nga koy xëpp. waaw ñun ñii sax bi nekkee xale. daanañ ko def. ndax boobu. ñun ñoo ko foon canal ba doo gis oto mbalit. <laughs> déedéet mais léegi nag tane na. beneen bi mooy. mooy maanaam lu ñu bàyyi lu naaw lu ne. bu ngelaw amee. Mm-hmm. wala ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba guddi. Mm-hmm. ñu tuur si kanaal bi. Mm-hmm. bu ko defee boo tuuree fenn sa morom tuur. sa morom tuur mm. keneen tour mm. ñiy jaay yeneen ak yeneen ñëw tuur mm. bu defee léppay bouché dara du dem beneen bi mooy Valda tamit fa ñu nekk Valda waaw fa ñu nekk ñoom war nañ faa bàyyi xel Valda ndax société bu mag la waaw mooy usine Valda bi waaw ndax foofu noonu waaw ñoom it si li leen yàlla defal macha allah waaw waroon nañu ñoom it au moins occupé côté boobu ba nga xam ne du tilim ndax société la boo xam ne ñu ngi tafu si booru kondir bi xam nga lu ma jaaxal waaw Valda mi ngi ci booru kondir waaw kondir baa ngay fat waaw ko Sococim zone ba mu féete waaw mi ngi fat tali ba matul 3 mètres waaw lekku na ba jeex wala defaraat nañ ko sama ginnaaw waaw léegi tali bi sax ñu ngi koy defar waaw état bi waaw am na lu mu si defar maanaam muy euh, côté bi jaar euh, maanaam bi jëm autoroute à péage defar ko non man bi relier comme par boo jógee woon ci national bi non non boobu defar nañ ko Colobane nga jël nga jël Colobane bëgg a dugg Arafat merci nga jël poste courant bi jéggi raay bi boobu defaruñ ko jël sa droite jëm Sococim waaw boobu defaruñ ko boobu mi ngi mel ni meloon ba tey loolu lépp dafa metti beneen bi mooy danga fay ñëw léeg-léeg sax camion yi mm-hmm. ñoo lay traité ñëwal ci usine Valda parce que bu ñu juddoo fa lañ bi uh-huh. tamit vraiment li ñu macha allah jaay si ay maanaam liquide bi nga xam ne moom la ñuy raxasoo waaw gel bi waaw waroon naa mën a tax ñoom it au moins ak di fay sponsor yenn émission yi ngoog léegi nag ñoom ñu raxas war a jàpp mm-hmm. bi ñoom it dëgg la mais ñu xaar sax maire yi ñëw ne leen kat jàppale leen ñu mais ñoom ñoo waroon wax mairie kat kaay ñu bokk xalaat. Mhm. tey boo demee tey usines yi nga xam ne ñoo nekk yeneen dëkk yi. waaw ñoom ñëpp kenn ku si ne yaa ngi mhm. kenn ku si ne yaa ngi taxaw kenn ku si yaa ngi naan laa war a def mais bu dee Valda fa mu nekk ñun xamuñu dafa am luy génn foofu fàtt mbir mi xamuñu kayit ya fay nekk moom la ñuy sànni fii ba pare bu feesee ñëpp ne la mairie la mairie la mairie. te bu tawee mu marché kenn dul xam ndax. li canal la wala wala lii te la mairie. buñ mhm. ne bi rek. waaw tënkee jëpp la. dëgg la population la waaw. mairie bi du benn mairie. te bu marché jotee ca mairie ba lañ jëm te bu marché jotee ñu ne daaw dañaa. waaw waa léegi daaw dañaa moom dëkkul si canal dëkkul si kondir moom mu dëkk fa fële wax dëgg yàlla. Mm-hmm. sori naa kondir bi. Mm-hmm. bon ñi jege kondir be canal bi. waaw ñoom ñoo war a sàmm. est-ce que kon jàppale seen bopp jotul woon ñu créer ay association wala ay kuréel yoo xamante ni jàppal ma jàppalee doon. kenn ngi ci ligne bi ñu jël ko parce que loolu dafay am solo su bu ñëwee Valda ñëw keneen ak keneen ak ñëw bu ñu jàppee Tëngéej mën naa jëm kanam mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bi tur bi naka la fay wootee. man la Daouda Correa. enfin monsieur Correa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission kër gi di laaj fan ngay wootee. ñu ngi lay fay soxna Mbayam. Mhm. ñu ngi lay fay bu baax. merci beaucoup Daouda yaa yaa ngi wootee Rufisque. di di kontaan lool si si émission bi. merci beaucoup Daouda c'est l'adjoint au maire d'accord. maa ngi leen di suivre bi ngeen commencé ba léegi. jërëjëf jërëjëf Daouda. Eh, seen invité bi nag. Mm. lii ma dégg mu wax ko lépp. Mm. muy Cheikh Ahmed Tidiane. da dangay wàññi sa télévision su ko defee ñuy waxante ci téléphone bi mu gën a leer. li mu wax mooy li ñu xalaat ñun yëpp. Mm-hmm. waa Tëngéej. Mm-hmm. soxna Mbayeb nag man yàgg naa suivre sa émission mais xaw ma ne waa Tëngéej dem. falaa juddoo falaa màggee <laughs> te sama yaay ju baax ju tedd ja borom jikko ju baax ja ma nga fa. nii may wax ak moom. <laughs> kon nag kontaan naa lool. wallahi maa gën a kontaan Korea. li li ngeen defal Ahmed Tidiane nag waa Tëngéej jëpp ngeen ko defal. ndeysaan jërëjëf jërëjëf Korea. ndaxte émission bi dafay ñëw si mm-hmm. bés boo xam ne si la Tëngéej di feete cent quarante ans. yu yu yu yu yu yu ville de Rufisque. <coughs> waaw ndaxte xam nga Tëngéej. waaw. mi ngi nekk commune de plein exercice mm. le 12 juin 1880 mm. 12 juin 1880 la la Tëngéej am waaw merci beaucoup am solo 12 juin 2020 mm. ñu feetee sunu 140 ans muy démb cent ans nag du benn fan du ñaari fan déedéet wallahi te bokk si dëkk yi nga xam ne mm. dañuy bind histoire Sénégal mm-hmm. tey jii bu ñu nee histoire Sénégal taaru na mm. defe naa ne kenn du ci génn Tëngéej dëgg la wallaay da ngay def si jouer rôle bu am solo mm-hmm. Mm-hmm. Euh, bureau municipal bii ci di wax Cheikh Ahmed Tidiane mm. dafa nekk bureau municipal boo xam ne Ah, bureau municipal bu am solo la si tamit. dëgg la ndaxte bi ñu leen ba léegi. Hmm. te ñaari ñu tënkee ci rek rek rek moo leen ñor. alhamdulilah. dañoo falu. Hmm. xëy suba organiser li ñu tuddee les assises de Rufisque. Hmm. woo képp koo xam ne doomu Tëngéej la yaa xam yaa ngi Sénégal wala nekk ci diaspora bi. ñu woo la. lu leelu lu mat at <laughs> càmbar lépp loo xam ne war na mun a nekk problème mu Tëngéej milliards yooyu nag moom moo ñu gàllankoor waaw moom moo ñu gàllankoor ba tax na fii mu nekk nii da ngay nekk ci ay jafe-jafe yu bare bare bare bu baax jafe-jafe yoo xam ne nag hmm. état rek moo nu si mën a jàppale moo ci mën a jàpp ñuy ñaan président Macky sal hmm. mu gestu Tëngéej am na solo te loolu bu gestoo Tëngéej moom boppam la gersu ndaxte dafa am <laughs> dafa am si keppaaru tëngeej ndeysaan benn projet hmm. bu ñu tuddee les pôles urbains les pôles urbains les pôles urbains waaw d'accord xam nga président la République waaw am na pôle de Diamniadio waaw def na pôle de Daga Kholpa hmm. def na pôle de Lac Rose hmm. pôle bu nekk dafa am ñu nekk kii pôle administratif la kii pôle économique la li pôle touristique la. d'accord kii pôle agricole la. Oh, mais mu des nag. waaw mu des nag Tëngéej. Hmm. Tëngéej bi nga xam ne moom mooy chef lieu départemental bi ñu ne ko léegi sa pôle yooyu soo bëggee. Hmm. lu cohérent mu am une cohérence territoriale mhm. da ngay créer benn pôle culturel mhm. pôle culturel boobu nag Tëngéej moo ko yeyoo bu baax ndaxte Tëngéej dafa am loo xam ne doo ko gis mukk Diamniadio ville historique la doo ko gis keneen ndaxte mhm. dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am patrimoine architectural dëgg la mu nekk richesse bu am solo actuellement boobu ñun li ñu bëgg mooy réhabiliter monsieur Daouda Correa nekk adjoint au maire foofu ci daaw Daouda ñaa ñu koy nuyu di nuyu équipe bi yëpp li mu wax ci Cheikh Ahmed Tidiane ñaan euh, soo waxee nag ci invité dafay mel ni dara la waaye moom ak sama rakk ñoo doon ànd mm-hmm. macha allah fa tabarakallahu euh, te li ñu naan doon sa baay doon sa baay ko gën noonu la taxawee fa laa yem ci moom li muy joxe sax maire ba joxe joxu ko ko ndax nag askan wi yëpp dina wër taxaw leen surtout jamonoy confinement bi nga xamante ni moom moo amoon macha allah ba ñun ñi nekk Dakar sax kenn merul Xadi Mbaay Jooda Mbaay merul ñeneen ak ñeneen Maguette Fall xam naa ne ma ngay xëccu naan su ma sañoon maay toog ci wetam wan kan wax kan mooy Cheikh Tidiane Niane waaye nag eh, tey sa rakk ngi fi macha allah dana la ko waxal kon yàlla na nga gudd fan yàlla bàyyi la fi eh, tëngeej ni ma la ko xee propriété bi de de propre gis nga tëngeej bu setoon mm-hmm. tali baax mm-hmm. rek lu bari ci askan wi li ñuy ñaxtu. Mhm. mën naa wàññeeku. dëgg la yéen a ngi ci yoon woowu. dëgg la euh, lay saar na ñu may image parce que. Mhm. Euh, dem naa fa malheureusement munu ma munu ma ko woon a photo. Mhm. munu ko woon a filmer wala dara. mais photo nañ ko gis nañu ne gars yi ñu ngi préparer nawet bi. mooy hivernal bi. gaa yaa ngi préparé. voilà mooy waa DSP mi ngi nii. waaw opération. waaw vraiment. waaw temps yii yëpp. waaw ñu ngi si canal bi macha allah di liggéey. liggéey mais li may wax tamit doomi Tëngéej. waaw comme ñiy gas. waaw di bale. waaw di tonni. waaw ay nit lañu. fajar teel ay waa doomi Tëngéej lañu. Mm. nañ leen jàppale tamit ku yor sa mbalit. waaw nga jënd pollu mbalit. même pas 5000 nga def ko si. waaw bu oto mbalit bi ñëwee nga def ko si. vraiment tamit moo gën. Mm-hmm. yow boo tëddee ba guddi. waaw jël sa mbalit tur ko si kanaal bi. waaw boo liggéey. mu andiwaat yeneen problème. mbalit tane na xar waaw xar yu dee yi. ñun tamit ñoo war a xool. Mm. vraiment soxna mbayam suñuy civilisation ñu bañ a vraiment def loo xam ne tamit bu ëllëgee. Mm. dafay xaw a doy waar. Mm. ndax li nga gis nii. waaw bi ko mairie bi di def. waaw donte ni sax xam naa ne mënuñu ko. waaw mais daaw dañaa ak bëgg bi nga bëgg tëngéej. ak vraiment xoolam ak ni mu jabootee macha allah mu waxtaan ko conseil municipal bi. te nawet moo tax waaw te nawet baa ngi ñëw. moo tax ñu def lii. te lu bëri mi ngi koy xaar. waaw beneen bi mooy école bii passé rek bi ñu waxee dañuy ubbi. waaw li mu commandé ñëw ci fu am solo. bu buñ ne émission kër gi. waaw dañuy wax ñi ci kër gi. waaw population bi. dëgg jigéen ñi foofu ñoom laay wax. Mm-hmm. nañu yokk farlu. gis nga ñun. Mm-hmm. ñun ñu juddoo en face canal bi. Mm-hmm. xam nga sunu diggante canal bi matul woon 10 mètres. dëgg la mais di nga gis nit koo xamante ni day ñëw di tuur nga ne ko seggal li ngay tuur. day jur xeex boo xamante ni dina yegg ba ci chef de quartier bi. dëgg te ci buntu kanaal bi la koy tuur léeg nga gis koo xamante ni buruweetam lay yor teg ci xaram mu médd ci këram ñëw ba ci buntu kanaal bi teg ko fa wala mu waddal ko ci kanaal bi loolu nag bu fekkente ni dem na ba boucher biir kanaal bi wala mu indi yenn gàllankoor war feebar yeeg yooyu buñ ko jiiñ la meer vraiment am ñoo xam ne ay voilà tiwo lañ jël def ko caniveau mu jëm si canal bi ay tiwo seeni tiwo la ñu bënn jël ko muy sotti ci kanaal bi lu ñu wax ñu ne mairie lu ñu wax ñu ne daaw dañaa lu ñu wax ñu ne nangam. Mhm. te tamit état am na si part de responsabilité. bu mag ñuy wax tamit état vraiment mairie. mais des fois itam ñoom dañuy ñaxtu ñu ne oto mbalit bi bariwul lu muy ñëw. waaw oto maanaam waa ISRA. mais mbalit bu bariwul lu muy ñëw. nga takk ci mbuus. oto mbalit bi sax vraiment. c'est pas que nga xam naa ne ñoom fi ñu war a dem. waaw yëpp matewu ko. mënu cee mat li ñu war a def ñu ngi koy def. Mhm. da wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu. Mhm. équipe bi tamit ñu ngi góorgóorlu. mais li may wax rek mooy état bi. Mhm. ku mel ni président Macky Sall. Mhm. ñu jàppale waa Tëngéej jàppale mairie bu rëy Tëngéej. jàppale population bi. ndax soxna mbayam ku ne yaa mën a jàppale sa population. dëgg la franchement parler. Mhm. yëfi nañu bàyyi diw àndul ak man. diw du sama maire diw PDS la ko fa tekkal. wala nangam ak nangam daaw dañaa ah. doonte ni PDS la mais quand couleur bi mu yor duggul ko si biir mairie bi. déedéet ndax moom buy ñëw daaw dañaa lay doon. dëgg la. simple. pour mériter nekk conseiller municipal ñun ñu nekk ay conseil ànd ak loolu moo yàq gox yëpp mais bu ñu tamit ne àndul ak président mais mi ngi ànd ak président. Mhm. ndax la président waroon def. mi ngi koy def te yàlla tax. dëgg la jàng yi nga xam ne tey jàng yi am tëngéej yëpp. waaw képp ku def ay jàng. Mhm. di nga ko woo. Mhm. képp ku am benn cérémonie. di nga andi sa carte. ne si maire laa jëm. lu mu mën ak lu mu mënul mu def ko si. li si mujj rek bañ ne école dañuy tijji. waaw boo gisee li mu def une valeur de 40 millions et quelques macha allah. Mm-hmm. la ñu jël. Mm-hmm. vraiment jënd ay gel jëndaat ay masque pour ci école waaw mm-hmm. jënd ay pompe jënd ay thermoflash thermoflash yi rek presque mat na ay 300 thermoflash. pour tasaare ko ci école yi waaw pour tasaare ko ci yi. uniquement waajal retour xale yi ak daara yi. ba pare mu commandé waat ceeb. Mm. yónnee conseil yi. Mm. yónnee population bi yaa ngi dégg. d'accord commandé yeneen encore jox ko ñi nga xam ne ñooy ñëw di doole yi. d'accord bon état bi. Mm. nañu ñëw dimbali. mairie bi dimbali population bi. Tëngéej sonn nañ de. vraiment ñu ngi koy wax président Macky Sall. lépp euh, maire bi attanu ko. mosu ñoo grève. mairie bi kenn mosul def conférence de presse. déedéet kenn mosul ñaxtu. projet yi ñu téye yëpp si mairie bi dangay yaakaar ne sax maanaam état bi dañu contre Tëngéej te loolu jaaduwul. dëgg la te ñaata nit ñoo nekk Tëngéej. député yaa ngi fa. Tëngéej am na ñaari député ndeysaan département bi am nañ lu mat quatre député waaw am nañ ay ASC waaw ay kilifa ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk jàmmam ba mu génnee àdduna ah, ndeysaan Njawar Touré maa ngi koy nuyu bu baax ah, maa ngi nuyu soxnaam moom tamit Alhaji euh, Mbaye Sarr Diop ndeysaan yàlla na yàlla yokk leeram ndeysaan ak Njawar Touré ndeysaan yàlla yokk mm. mu génnee àdduna mm. la maire laata kenn du wax moo fa andi benn tante boo xam ne kenn xamul tante bi ñaata lañ ko luwee macha allah. ngir sagal boppam. dëgg te fi nga koy gis noonu daaw dañaa. Mhm. sëtu Seydi Hadji Malick la. sëtu Cheikh Ahmad Bamba la. Hmm? Maodo Niang mooy bàyyam. Maodo Niang. ndeysaan ak soxna Safetu Niang. Mhm. ak soxna Awa Bousso mi jël sëñ Fallou. seen maam yee bokk ndey ak baay. moom baayam Maodo Niang moo daan téye loxo Seydi Hadji Malick muy julli. dëgg la fi nga koy gis noonu xalifa général kër baayam la. donc dégg mu wax te ba mu ñëwee ba léegi amul benn agent bu naan daaw dañaa toroxal na ma wala humil humilié na ma te ba mu ñëwee yokk na salaire yi su amoon dañ ma koy wax man mii <laughs> bi ngay gis nii daaw ah. dañaa goro la si moom goro la si moom kon war naa mën a ne te ngay goro la si moom ndax ñoom ñëpp ñoo bokk nekk PDS ndax avant APR président mm. Macky Sall bi PDS la nekkoon dëgg la du dëgg ñoo ñëpp ñu nekkoon fa ba yàlla dogal maanaam lii xew-xew mm. bon nag man mi wax ak yow. bu amee kenn waat ci man mi wax ak yow jël ko. APR laa jàppale. bala ñoo jeexal. man mi wax ak yow. waaw mouvement dama mouvement laa créé dama élection. waaw mais élection présidentielle bi passé. waaw président Macky Sall laa jàppale. te terewul conseiller nga ci daaw dañu ñëpp ñu ngi ànd. d'accord ci liggéey. kon ñun ñooy bëgg a ñaawal ah. rek mais dara ñaawul ci biir. dama ne la booy xool moom. waaw ñaar ñi presque euh, euh, ñi mu am si ay conseillers. Mm-hmm. bëriwuñu mais sens mooy fale ak barke. dëgg la jikko moo tax ñu wóolu ko. dëgg la ak na mu doxale hmm. te ba mu ñëweeg léegi gisoo kenn ku mu xas gisoo kenn ku mu saaga gisoo kenn ku mu toroxal déedéet mais ñëpp mi ngi ànd ak ñoom àndu nawle hmm. may wax daal alxaaji Macky Sall hmm. na jàppale vraiment tëngéej jàppale population bi xam ne sonn nañu su ko simit nañu jàppale tëngéej def fa benn hôpital def fa benn lycée ba pare titre foncier yu ñu jël si Rufisque ñu delloo ko mairie bi mairie bi am na ay projet yu mu fa war a def. xam nga tubaab yooyu la yaa ngi dégg xale yi tëngeej nañu. loolu la Ngol Ngol di wax. ñëw ci réew mi jënd suufus réew mi. waa réew mi toog ba pare jël ko. ba pare revenu ya ngay am doo ko delloowaat ci réew mi tali yi yàqu la mu jël ne moo ko moom tamit booy xool moo ëpp a bari ñi jaaduwul mais booy donnu kañ da ngay donnu loo xam ne tamit da nga ko donnu sa maam Tëngéej Tëngéej Rufisque en difficulté yaakaar naa ni loolu gëw ma ni xaj benn émission du dëgg loolu mairie mënu koo xeex kenn mënu koo xeex surtout usine boo xam ne da ngay defar ciment defar béton comme temps yi nag coowal suuf dafa am ñu ngi posé suñ coowal suuf su ko sim na président Macky Sall la ñu wax ak su ko sim la mu jël di ko gas dafa def ay mine jël si loo xam ne ni dañ koy jox waa Tëngéej am nañ ay projet ñu def si ay hôpital def si ay lycée hmm. def si loo xam ne ni bu ëllëgee suñuy sët bu ñëwee ëllëg fa lañ jëm ñun suñuy waxuma suñuy doom suñuy sët <laughs> dama ne suñuy sët bu ñëwee fan lañ jëm fan lañ jëm fan la ñu jëm suñuy doom moom mm. xam nga lu bon bon ñu ngi gisee ak ñun mm. xaw nañ leen waajal tuuti mais suñuy sët fan lañ jëm fan la ñu jëm mm. très bonne question xanaa bon ñoom dootuñu dëkk Tëngéej dañuy dem ba ay Koungheul dëkki fa balañu dem ba ay Kousanaar si àll bi noonu du dëgg muy lu am Volda ak Sococim nañu jàppale Tëngéej ñaari structure yooyu rek mën naa cap de biche tamit cap de biche courant ba ñu yor ñoom it nañuy participer si tëngeej ndax dañu leen di fay ay courant la ñu yoreel tëngeej nañ koy gaaw a fay moo gën ñoom it ñu koy wàññi état bi di leen jox yaa ngi dégg ay yaa ngi dégg di leen euh, yaa ngi euh, yaa ngi dégg di leen defal ay faveur yoo xam ne dañ ko fay jaaduwul état moom day fayee ko port boo demee bo la war a fey si douane yëpp da koy fay mm-hmm, mais mm-hmm. bon ñoom it euh, la ñu war a fay mm-hmm. nañ koy fay mairie bi su ko defee mu delluwaat ci biir Tëngéej mu kii mais Sénélec bu waree fay mairie. Mm-hmm. Sénélec dafa jege état. waaw dañ koy dawloo. Mm. su ko simit ay tubaab la waaw yaa ngi dégg. waaw bu ñu waree fay mairie bi. Mm-hmm. dawloo ko keneen ak keneen bon mairie bi kañ lay dox te ku jóg dem si mairie bi. man dinaa fa dem dinaa dem ah. ba ca mairie ba incha allahu taala dinaa gëstu itam waa Tëngéej li ñuy jooytu lan la parce que wax naa leen ko seen émission kër gi ci yeneen anam lay demee bu fekkee am na benn téléspectateur rek boo xamante ni moom itam mi ngi may signalé ne bëgg na dugg mi ngi xëccu bàcc li su ko defee ñu dugal ko rek daal di jeexal suñu émission waaye nag eh, jafe-jafe yi nit ñiy jànkonteel wax naa leen ko lépp nag ci biir kër gi nii lay doxee lépp lay laal thème yaa ngi ci biir kër gi waaye nag mairie gox yeeg lañ fa war a def ak yépp dafay doon loo xamante ni dañ ko indi fii ci biir kër gi damay déplacé wu sax di ko jëli en image di ko indi ànd kook nit ñi kenn ku ci nekk nga ñaxtu mais nag ñaari parti yépp lay doon su fekkee am na ku mën a jógee Valda wax ana lan mooy taxawaayam ci Tëngéej lan la fa def place baa ngi nii ma tegal ko mën na fee toog ke jóge Sococim noonu keneen ak keneen koo xamante ni yaa ngi Tëngéej te bëgg ñëw ci plateau bi te am loo xamante ni mën nga ko apporter Tëngéej wala def nga ko fa mu ngi seen émission kër gi loolu moo ko tax a jóg samedi ba samedi 16h30 jëm 17h30 incha allahu taala ngeen ànd ko ak seen xarit ak euh, ki nga xamante ni mooy soxna Mbaye may nuyu bu baax a baax group les amis de Harouna Dia maa ngi koy nuyu di nuyu solidarité 7 dinaa leen fi indi ñoom tamit ñoom Daba Ndiaye Koundé macha allah ñoom it ñu doon ay jigéen doon ay jàmbaar lan la ñu liggéey ci tëngeet lan la ñu taxawal loolu daal temps yi moom ma ñor ndax dama tàmbalee jëm mag nag moo tax fi mu ne faaw ma dugg nag ci projet yi solution yi lan la loolu moo tax euh, misaal mi ne woon ba pare soxna Mbaye da sa mbokk dëgg dinaa nuyu sa sa mbokk dama wax ne état bu la xojee nooy def <laughs> bu nooy def nooy def nooy def bu dee yow mairie nga waaw la nga waroon am a cent pour cent état moo la ko war a jàppale waaw mais tamit ñu ngi wax El Hadj Macky Sall waaw ni mu jàppalee géejuwaay mm-hmm. jàppale ko yeneen dëkk yi mm-hmm. bañ am ay tali mm-hmm. ku fa dugg xam ne gis nga sa bopp na ko defar waate ngi maire lettre rek la mën a bind daaw dañaa amul lettre bu mu bindul bun Abdoulaye Dione amul lettre bu mu bindul président Macky Sall Mm-hmm. mais nag na xool ne Daouda dañaa sénégalais la maire la mooy maire Tëngéej mais sénégalais la. mais problème bi sax mooy Tëngéej li mu doon. mi ngoog mais bu la të bu la bu la état xojee mbayam soxna mbayam bu la état xojee nooy def. fan ngay jooytoo. Mm. xanaa doo jóg nag naan yaa ngi jooytu ji France. dëgg la wala Amérique wala mm-hmm. te sa bopp nga tal. Mm-hmm. mais état bi mooy président Macky Sall na jàppale waa Tëngéej. Mm. te yàlla tax te yàlla tax lépp lu ñuy def ñu dugal ci alxaaji Daouda Niang mi ngi projet yi mu leen jox mm. te ñu dugal ko seeni trois nañ ko génnee ndax man mi wax ak yow. président Macky Sall laa jàppale sama carte APR laa yor. dëgg la dëgg la. yëfi nag du ay APR du ay PDS. tëngeej moo soxla mm. tëngeej moo soxla te ñun. Mm. bëgguñu dugg si ay yoo xam ne ni bu ëllëgee. Mm. daf ñuy gis si télé. dañu seen muy am nu muy demee. dëgg la te lépp lu ngeen ko mën a wax. daaw dañaa it mënul waxal boppam ñun ñoo ko mën a wax waxal. nit ku dal la. nit ku oyof la. mais lettre bu ne mi ngi koy bind. nit ku social. yaa ngi dégg lettre bu ne ñu ngi koy bind. mais damay wax ne président Macky Sall xam ne tëngeej xam nga te daaw dañaa goro la si moom xam nga euh, Korea wax na ko léegi nee na président xam na la xew Tëngéej parce que nag euh, pas mal de sénégalais yoo xamante ni dañu ànd ak le président de la république ñoom Tëngéej la ñuy jógee Tëngéej la ñu dëkk wala boog dinañ fa dem di seeti gi seeni jur ku nekk xam na ne Tëngéej marché bi demeewul noonu ku nekk xam na ne Tëngéej kanal bi demeewul noonu ku nekk xam na ne Tëngéej itam propreté bi ak tali yeeg yooyu demeewul noonu waaye loolu yëpp dafa laaj ay moyens mm-hmm. ñu bari sax ñu ngi naan canal bi chaque fois ñu raxas ko chaque fois ñu raxas ko pourquoi duñ ko ub est-ce que maire bi mën na ub kanaal yi nekk Tëngéej yëpp. mais amul moyen mais xoolal soxna mbayam parce que boo xoolee kanaal bi jógee joor ga romboon suñu buntu kër jëm jokkul waaw kooku boo ko naree tëj ça nécessite beaucoup de moyens ma wax la benn léegi boo xamante ni dafa jëm ci ciment ak suuf ak fer te loolu la soo ko sim di liggéey temps yi sax état na ci liggéeyam moom commandé nañu ay lampadaire lampadaire lu tolloog 1300 lampadaire pour pour euh, la ville de Rufisque d'accord muy Tëngéej yëpp mm-hmm. ñu ngi koy defar ndànk-ndànk mm-hmm. mais xoolal làmp yi léegi boo defee boo changé ampoule yi. waaw balaa ñaari fan yëpp fet man xaw a Senelec fu nekk mais ñoom ñi nga xam ne tey. Mhm. am na ñoo xam ne tëngéej lañ dëkk. Mhm. am nañ fa ay cité. Mhm. xanaa wax dëgg yàlla mënoon ñu jóom mairie bi. waaw comme Cap de Biche ngi tëngéej. mais ñu ne kay la def partenariat. bu defee poto yi sax au mois ñu si jàpp. ndax dépassé nañ yenn yi. dëgg la mais bu dee da ngay xaar mairie. def yenn yi. te yow nga nekk si wetu mairie mais adduna bi kañ lay jag. kenn du ko xam kañ lay jag mais ki war a wax bu waxulee hmm. mais xanaa du moom mooy wax xëy na le président mi ngi lay dégg xëy na dina ci jokk ñun daal fi mu nekk nii tëngéej moo ñu ñor hmm. man Ahmed Tidiane ñaan conseil municipal waaw nañ ñu dimbali hmm. te président na xam ne bu jàppalee tëngéej Sénégal la jàppale daaw dañaa it mënul rek def loo xam ne ne mënu ko vraiment li mu man ànd ko conseil municipal bi ñu ngi koy def ñuy profité di nuyu Mame Omar Mané di nuyu Albendo yi ak Aline ñoom ñooy maire maire maire d'arrondissement yi adjoint mais di nuyu président Souleymane Ndoye hmm. waaw di profité tamit di nuyu Alhaji Daouda Sembène suma mag waaw waaw di nuyu Mamadou Moussa di nuyu Abdoul Aziz Niane sama grand frère si Italie Abdoul Aziz Niane waaw di nuyu Idi Niane hmm. di nuyu sëñ Abdoul Fattah Sall bu sëñ Abbas waaw ku baax ànd ak moom muy tabax ay jàkk macha allah defar ay école hmm. ba semaine bi rek am na waja fu ñu war a ubbi ay jàkk beneen biit vraiment may nuyu Pa Ousseynou Seck di nuyu El Hadji Momar Kébé ak Laye Niang di nuyu Fadel Diallo mi ma àndal muy sama xarit. Fadel di sama wëlër Haji Mamour Fall. Mm. di nuyu sama soxna. Habibatu Ndiade. Mm. ak ñaañu bokkum ñaan. ñaañu bokkum ñaan di nuyu Alassane Dia. ndeysaan vraiment mbayam. waaw ñu di la remercier. man naa lay remercier Alhaji Ndiaye mi nit ku yàlla baaxal la. dëgg la ndax soxna madame Ndiaye. Mm. tamit ku baax la macha allah. waaw vraiment daal ku yiw la. koo xam nit wax dëgg yàlla. tout le temps maa gis muy jàppale. maanaam këru diine yëpp. dëgg la beneen bi mooy kër Thierno Ablaye Diop. lu war lu ko war foofu da koy def. kër ñoom waaw kër Thierno euh, Abdou Lamine Diop. ci kër ñoom wëllëram la waaw ak kër Thierno Amadou Bamba. waa jàkkeetu couleur yi waaw moom Alaaji Njaay it ma mm. gis muy def. ndeysaan maanaam si këru diine yi mm. rawati nag Medina Gounass Alaaji Njaay ñu ko tiitaroo vraiment imin beltinima imin calminima sabo ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo mm. tedduɗo mm. vraiment may nuyi sama boppo haalpulaar yi mi weltima mm-hmm. vraiment mboɗo juuro fotonkoɓe foof ndeysan ndax man wa agnam siwol la sama yaay wa mbumbala sama papa wa agnam siwol la ndax farba ngom moy sama mère mm-hmm. ñoo juddundo ñoo maggando madi ko nuyu momit mm-hmm. vraiment di contane si yow mbayam ndax tey waxuñu fi suñu waxu kër suñu waxu dëkk a gox lañ fi wax te waa tënge yëpp kontaan nañu vraiment yàlla na la yàlla taxaw yàlla may la wér te may la nuyu Diarra Ndiadé jabar Abdoul Aziz Niane di nuyu Idi mm-hmm. di nuyu Mamoud di nuyu Mansour Niane mm-hmm. vraiment di kontaan si yow trop macha allah di wax ne daal président Macky Sall daal mm-hmm. ak Marième Faye Sall xam na kuy daaw dañaa ak Pa Abdallah Diagne ak Omer Seck ñoo daan ànd bon nag nañu jàppale daaw dañaa mooy jàppale Tëngéej vraiment war a ñëw sax taxaw na waaw taxaw waaw ne pourquoi waaw mi ngoog mel nii loo xam ne boo koy loo xam ne booy tëj mairie du yëg voilà booy tijji mairie du yëg tëngeej lan la ñu war a def tëngeej lan la ñu war a def ba koom-koom am fa comme assise bi defoon baax euh, euh, yéen a ngi am ay projet pavage ñi ngi si fi mu nekk nii pavé ñu këri suuf yëpp ba si marché bi yëpp daaw dañaa pavé na ko c'est bien mais léegi li état war a def mais c'était pas facile yombul d'accord yombul d'accord ndax léegi boo waroon pavé ñu jël euh, léegi ñu exonéré Sococim exonéré keneen ak keneen mais daaw dañaa nan lay pavé ah day doy wax mais état na muy jàppale ñeneen ñi bu ñëwoon ne Tëngéej daaw dañaa kaay ñu waxtaan andil ma projet Tëngéej mhm. andil ma bi ngeen defee maanaam seen coalition bi waaw suñu suñu réunion bi ñu defoon yaa ngi dégg assise bi andi leen la ngeen fa tënk mhm. ma xool lan mooy jafe-jafe Tëngéej dëgg la bu boobaa président dina xam mhm. lan mooy jafe-jafe Tëngéej mais ñu yàlla yaa ngi dégg euh, quatre ans yi mu dese. Mm. te loxoom duggul ci Tëngéej. Tëngéej dëkku Seydi Hadji Malick la Cheikh Ahmad Bamba Cheikh na Cheikh Saad. Seydina Limaamu wallaahi wallaahi nekk dëkku cosaan nekk dëkku cosaan boo nee ndar boo nee ndar mi ngoog ne ne tëngéej ne tëngéej port ba fa la nekkoon waaw mi ngoog kon tey ku ñëw fi visité tëngéej am ay nombre ndax fil historique la war nga fa mën a fekk ci beneen anam waaw mais vraiment des fois dañ nit ñi mën nañ ko jàppee dafa fuuy moom naa ma nga dëkk Dakar non non mais tëngéej ñi mu mel foog loolu lii moo waral tey ñu di ko jooytu fii ñu xool naka la ñuy def ba kenn ko ci nekk dugal ci sa loxo rawatina état parce que am na ci loo xamante ni état moom moo ko mën donc donc ñu ngi gërëm maire bi yëpp vraiment daaw dañaa ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm mm-hmm. gis nañu taxawaayam mm-hmm. man nax naa la ko fii mm-hmm. duma waxantu mosuñoo toog mosuñoo wax téléphone mosumaa wax ak moom mais nag dégg naa li muy def surtout nag côté dimbali jaboot yi nga xamante ni dañu néew doole jàngalekat la woon jàngalekat la woon ba pare li ma ci gën a neex si moom mooy du ko publier du ko publier kenn du gis image kenn du gis li muy ñu bëri xamuñu ko te day toog ba guddi mu dem dimbali nit ñi te yàlla tax këram dañ këram dañ koy dégg këram fees dell ba pare mu accessible waaw ba pare doomi soxna xam nga autorité loolu neex na ci nga accessible. waaw mais bindal demande. nga bind demande d'audience. jot secrétaire ba wut protocole bu gudd yëpp. yooyu yëpp dalu ko bu tabaski jotee. waaw dañuy indi seen i photocopie carte d'identité mu jàppale leen. mu jàppale leen xamu si kenn. merci bu korité jotee noonu. donc bee màkk it bu jotee. waaw macha allah da koy jox ñi mu ko war a jox. <laughs> noonu la koy defee yaa ngi dégg. voilà donc kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ñu ngi gërëm bu baax waa Tëngéej yëpp di gërëm ni ma ko waxee Cheikh Ahmed Tidiane Niane macha allah parce que nag ni ma ko waxee rek noonu la amee ne euh, dafay def moom itam te yàlla tax te daaw de ñaa du ko yëg euh, keneen ak keneen du ko yëg euh, koor gi ah, ak koor voilà mbokk daa dugg si kon nañ ko jël une minute rek après ñu ñu ñu tàggoo parce que Laye Sarr dafa lekk sama temps allo asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar tur bi naka la fay wootee ah, maa ngi tudd Amadou Sène Niang Amadou Sène Niang waaw di porte parole maire Tëngéej ay ca Amadou yow rek la ñuy déglu sa participation. ci tënk waaw d'abord di gërëm Ahmed Tidiane Niane. ndeysaan. Euh, suma mag la suma collègue la conseil municipal bu Tëngéej. ndeysaan di ko gërëm si taxawaay bi mu taxaw si wetu maire Daouda Niang. Mm. di wax rek ni ah, ama Tidiane Niang mooy rey. lépp lu jëm si Rufisque bu nekk si diaspora bi. Mm. mais yow soxna mbayam di doomu Tëngéej tamit. ñuy gërëm. ndeysaan ku taxawu Sénégal nga. waxuma rek Tëngéej. donc Amad Tidiane euh, dafa am liggéey bu bëri bu muy def si biir Tëngéej si hmm. biir Sénégal ànd fekk euh, ONG Al Khayria bu ab d'accord oh. Oh. Euh, ñu ngi koy jéglu bu baax a baax oh. dagg na dagg na xam naa ni temps bi jeex na <laughs> ONG boobu nga xamante ni euh, doomu Alaaji Abba Sall euh, moom moo ko yore di ci liggéey ak Ahmed Tidiane Niane sëñ Abdoul Fatah Sall bu sëñ mu ngi sëñ Abdoul Fatah Sall sëñ Abdoul Fatah Sall bu sëñ Abba bu sëñ Abba Sall soxna Alimatu nekk sa Dubaay di di di càmmeñal Ndiaye Abba xam ak jàmm ñuy def lu rafet ñoom it <laughs> macha allah di def bu rëy ndeysaan doomu doomu Cheikh Ahmed Tëngéej Cheikh Ahmed Tidiane ñaan bi mhm. boo ko wooyee ci jàkk ak jumaa rek mhm. mooy tubaab dem na Paris wax nga dëgg boo ko wooyee ci def def ak dindi ak tax mooy tubaab dem na Paris boo ko wooyee ci ci ay billet pour Makka ak euh, yóbbu nit Maroc mhm. mooy tubaab dem na Paris macha allah yal na la yàlla lafal cet da nga indi ay kaamil waaw kaamil bi waaw man maa ko jox directeur général El Hadj Ibrahima Ndiaye El mi ngoog jox nga ko ku baax léegi nag beneen bi ONG Al Khayriya moo ko jox moo ko jox El Hadj Ibrahima Ndiaye jërëjëf jërëjëf mi ngoog am na solo ñu nit ñu boole lépp nii caméra bi mën koo ñu boole lépp tamit voilà teg ko ci loxo daaw dañaa waaw mu joxal ñu ko directeur général <laughs> kon monsieur le directeur général El Ibrahima Ndiaye moom moom loolu macha allah euh, sàppee ko xeweeguma ci ay bëtam ndekoon léegi tey mu ne ma demal nga toog wala euh, confinement bi gudd na indil ma ay clic kalaj ak noonu déedéet dafa xam ne Mbayang mooy tuuru 2STV émission kër gi moom mooy tuuru 2STV moo tax mu lu mu xat-xat ak lu mu ruqe-ruqe rek nañ ko ci wutal benn bés moom ak soxnaam sos di Marème Ndiaye kon El Hadj maa ngi lay ñaanal ci barke Kaamir bi yàlla sa jàmm yàgg jàmm sa njaboot gépp yàgg Marème Ndiaye ñoom Abdoul ñoom ñëpp maa ngi leen di nuy di leen ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne Marème saa sone rek lu ma neex la may defal. ci kër gi.